Abdoul Aziz Baara. asalaamaaleykum mbokki jullit yi mbokki taalibe yi asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. ci ndigalu Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké xalif général kul murid yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér. sëriñ Ahmadul Muxtaar Mbacké xalifa Cheikh Mouhamadul Moustapha al Karim. sëriñ Moustapha Mbacké moom sëriñ Cheikh Sidi Muxtaar di jëwriñu Cheikh Mouhamadou Lamine Baara Mbacké ak mboolem njabootu Cheikh Mouhamadou Lamine Baara Mbacké gépp ci kilifteefu sëriñ Abdoul Karim Mbacké moom sëriñ Abdou Aziz mbokki jullit yi mbokki taalibe yi sëriñ Jili Mbàkke Moussa Abdou Aziz mooy ànd ak mbooleem njaboot gi yëpp ak taalibe yi ak xarit yi ak wëlër yi ci bis boo xamante ni incha allah rabbi mu journée culturelle bi ñu war a defal sëriñ Abdou Aziz mu ci woo mbokki jullit yëpp di ci woo mbokki taalibe yi xarit yi wëlër yi ak dëkkandoo yi di ci woo mbooleem njaboot sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul gépp waaye di ci woo mbooleem njaboot Cheikh Mouhamadou mbaar Mbàkke gépp waaye di ci woo taalibe yëpp ñu nekk ci biir réew mi ak ñu nekk ci bitim réew mbokk bis boobu ngeen xam ni ab bunt la rek ci liggéey bi nga xamante ni sëriñ Jiili ak ñi mu àndal fas nañ yéen ko defal seen waajur baax muy sëriñ Abdou Aziz muy bunt boo xamante ni fas nañ yéen bind ab livre maanaam ab téere ci seen waajur baax muy sëriñ Abdou Aziz waaye tamit ak li nga xamante ni mooy ab documentaire bu am solo boo xamante ni fas nañ ko def ci sëriñ Abdou Aziz waaye tamit ak fas yéene taxaw ci mboolem dëkk yi nga xamante ni sancoon na fa taxawal nekkoon fa di fa former ay jigéen ak i soxna ngir dëkk yooyu insha allah rabi fas nañ yéene at mu jot ñu dem fa jëmmal ko màggal ko loola waral nag bis bii nga xamante ni mooy ubbi bis yooyu mu war a nekk le 9 mars incha allahu rabbi ca CICES muy journée culturelle Serigne Abdou Aziz Serigne Jil di ci woo ñëpp ak ñi mu àndal bàyyiwul kenn. mi ak njabootu Serigne Abdoul Aziz ci njiitul Serigne Abdou Karim mi ak Serigne Jili mi nga xam ne moo taxawal bis bii di woo mboolem mbokk jullit yi. woo mboole mbokki taalibe rawatina njabootu sëriñ Baara ci bis bii nga xam ne dañu koy taxawal sëriñ Abdul asiis ñu ngi woon ak mboolem taalibe yi tàmbalee ko ci laxasaay yi seenu njaboot ñëpp bàyyiwuñ kenn di woo mbokk yi nekk nag Bulel di woo sama mbokk yi nekk Njaambor Dugo di woo sama mbokk yi nekk Kajoor ni woo waa Caaroy di woo waa Sanjara di waa waa waa Mboro sama bokk yooyu maa ngi leen di woo di leen soññ ci bis bi. di ñaan it nag ñi nga xam ne ci war nañ leen jox ndigal bis bi bu ñëwee lépp lu si waay man ci jàngal xuraanu karim wala nga jàng fukki ñeen fukki lixlaas ginnaaw gi naaw ci nabi sallallahu alayhi wa sallam diful ko addi si baar baak koy jox képp ku ko war a jox ndigal rek Karim Mbàkke ñu ngi ñaan sama borom guddal fan wi te defal wér ñu ngi woo bokk yeeg xare yi sopp yeeg wëlër yi yëpp nag ñu ngi leen ci woo ci bis bii di ñaan ñu àgg seen ci am te lépp luñ ci def ci aw yu samborom ba nangu te fu leen di ko tax jotee ko si ko teel ci dara ji borom Tuubaa dara ji Seex Mamadu demee ñi ngi yëkkati sunu kàddu ci turu mbooleem njabootu Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké li ko tàmbalee ci turu njabootu Cheikh Mamadou Hafiz gën ko xam ci sëñ Modou Baara ba ci caatum Cheikh Mamadou Lamine di sëriñ Xaadim Awa Ba njaboot ga ci diggante bi yépp ci seen kàddu maa ngi leen di nuyu bu ngeen gisee jataay bi fii ci kër Cheikh Mouhamadou Lamine ci teewaayub sëriñ Abdul Karim Mbacke xalifab sëriñ Abdul Aziz mu wuutu fi magam ji Cheikh Mouhamadoul Moustapha Mbacke mi fi toog toogaayu Cheikh Mouhamadou Lamine li waral jataay bi nag dañoo dëgmal bis bu am solo moomale ko jëmm ju am solo muy bisu fàttaliku di al yawmiyatu chaqafiya al muqassas li Cheikh Abdoul Aziz Ibn al Amin Ibn Khadim journée culturelle bu ñuy jagleel Serigne Abdoul Aziz Bara moom Cheikh Mouhamadul Lamine may doomi Serigne Touba di bis bu màgg boo xam ni njaboot gi ñoo ko taxawal du ma ni sax sëñ Abdou Khadir wala sëñ Abdou Karim waaye dama naan kër sañ Baara ndax cër bi ñu am ci borom bis bi di sëñ Abdou Aziz noonu moom lan am ci moom kon bisu kër gi yëpp la kon ci tuuru njabootu Cheikh Mouhamadul Lamine ñu ngi ciy woo ñëpp leen ci leen ko fàttali muy première édition bi ñu war koo defee ca Ndakaaru ca CICES date bi ñuy ñëw danañ ko leeral ak programme yi ci topp waaye kooku ñuy fàttaliku fàttaliku da ko mat lool ndax li mu doonoon ki doon ubbi wax ji daf ne jullit dëgg la woon murit saadix dëgg la woon tënk na sëñ Abdou Aziz jullit woon murit saadix dëgg la woon sëñ Abdou foofu la tàmbalee foofu lay am génnu loon foofu <coughs> mën nga cee taawil njàmbaar gi bëgg gi lu baax yaatu gi waaye loolu lépp day dugg ci jikkoy jullit di dugg ci jikkoy murit kilifa la woon koo xam ne mënoon naa yilif ñëpp te nangu woon ku ko yilif mënoon na jiite ñëpp te nangu woon ku ko jiite képp koo xam ne kilifaam nga woon àq ji doxoon sa diggante digganteeg moom jox na la ko ba mat sëkk ci war ma ci déglu la ci topp la ci di la liggéeyal ngir jëmmi Serigne Touba ji nga xamante ni kilifteef gi nga am ci moom Serigne Touba tax desalul dara ci digganteem ak ay kilifaam ci wet yëpp képp kum yilifit la nga am ci moom jox na la ko ti delloo la war ma ji nga ko jox yiir la yërëm la teete la gindi la cër bi nga am ci moom mu delloo la ko ba mu mat sëkk man sama jur sëñ Abdul Xadim rakkam la woon waaye dafa daan wax ni sama mbooloo mu ma séen Abdul Xadim sama xel dal na ca mbooloo moomee loola nag tënk na lépp ci li doxoon digganteem ak moom nit la woon koo xam ni ku jàmbaare la addunaam bépp da koo liggéey te wutu loon alal da doon liggéey wut alal ak liggéey dafa bokkul doomu aadama bu xësee ñëw ci àdduna ba bi mu fiy jógee lu dul jaamu yàlla ak liggéey da ko warul ci loolu la nekkoon bi ko Cheikh Mamadou Moustapha tarbiya ba natt ko ba xam ne mooy moom wóolu ko wóolu jikkoom wóolu aw fitam wóolu ak njàmbaaram mu sancal ko Bosra mu nekk fa ca di fa def li Cheikh Mamadou mustapha defoon ci moom muy liggéey ak jaamu yàlla ak sax ci ak njàmbaar jóge fa yokk ay jéegoom ci sanc yooyu fu mu jëm moo gën a metti fa mu jóge loolu daw cox na taxu ko woon di kii nit moom bu fekkente ni day daw coon fi ngay jóge fa nga jëm da koy gën a neex waaye sëñ Abdou mu jóge fu ne fa mu jëm gën a metti gën a sori loolu nag màndargam jàmbaar la saxoon ci liggéey ak jaamu yàlla ak yar njaboot gi ci diine ak ak ak mën a muñ moom ci boppam it jikko yooyu rek moo nekkoon ci moom. li ñuy tàmbalee nag mooy Serigne Abdou Aziz ak sëriñ Modou dañoo jaxasoo jaxasoo bi nag boo xoolee Serigne Jili kon benn firndee nga ko ñaareel ba muy Serigne Modou ba nekk kër jii li mu tuddee ko Serigne Modou kon kooku wàcc wa am na lu seqoon ñoom ñaar kon ñun suñ bopp Serigne Jili nee na. moom lii waru garam ak wàllam mooy soññ mboolem ñi njabootu Serigne Modou gi ak taalibi Serigne Modou yi ñoo jëmmal bis boobee ndax bisam la du bisu Serigne Abdou kon nag fas yéene nañ ko jàpp ci niñ daan jàpp ci bis yi ba mu réussir te yàlla def ci jàmm ñu dem ci jàmm ñëw ci jàmm te yàlla taas ñu ci barkeeb ki ñu koy defal ndax ca mag ña la bokkoon ci jàmbaar yi la bokkoon tam li ñuy doon li ñu koy xamade xamadi am lu ñu dégg ci moom référence la woon tam nag ndax liggéey ak jaamu yàlla képp koo xamante ne nii yaa ngi koy def rek yaa ngi dundal yoon wi te moog Serigne Modou ñoo bokkoon fañ doon liggéeyee mu ci Serigne Modou Moustapha kon lii du asaar kon nag ñun lañu fas yéene mooy def mobilisation boo xam ne daal di xam si ndax bis bi suñ bisa asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñu yëkkati kàddu siyaar bu baax euh, Cheikh Mouhamadou taq mi nga xam ne moo fi nekkal Cheikhul Khadim yàlla na fi yàgg lool te wér. di siyaar Cheikh Mouhamadul Muxtar Mbacke di fi nekkal Cheikh mustafa di siyaar Cheikh Moustapha al Karim sëriñ Moustapha xalifa Cheikh Mouhamadou Lamine Baara di siyaar sëriñ Abdul Karim mi nga xam ne moom mooy xalifa suñu Abdul Aziz di sunu buntu ci sëriñ bi di siyaar mboolem njabootu Cheikh Mouhamadou Lamine Baara Mbacke yëpp ak rawatina njaboot Cheikhul Xadim yëpp bàyyiwuñ kenn euh, ñu yëkkati nag suñuy kàddu ci ndegalul Cheikh Abdul Karim ndax lu ñu wax rek ci ndigalam lañ koy wax ak ndigalu sëñ Sidi mi nga xam ne moom mooy jëwriñu kër sëñ Abdoul Aziz euh, mu ndigalu sëñ Jili mi nga xam ne mooy coordinateur journée culturelle Cheikh Mouhamadou Lamine Cheikh Abdoul Aziz Baara Mbacke euh, dañoo amoon ndigal ca tàmbali ba ngir ñu coordonné bépp groupe bépp daayira wala bépp fédération wala fu taalibe mën a nekk ñu infol lépp loo xam ne day bàyyi ci kër gi ñu fexe ba ñooñu di ci jot ñu amoon xalaat nag taxawaloon ay groupe yu yaatu ci biir réew mi euh, ngir groupe yooyu liñ ci jublu woon mooy muy doon seen bunt ñoom ak sëriñ bi ba bu ñu ubbee bunt bi ñun ñu koy ubbi di jot ci ñoom ñoom it ñuy ubbi bunt bi di jot ci ñun di jot ci kër gi. loolu incha allah sëriñ bi lu mu sant nañ ci yàlla bu baax a baax a baax ndax loolu amal nañ ko kon nag ñi ngi xamal fépp fu taalibe nekk boo nga xam ne da ngaa aju ci kër Cheikh Mouhamadou Lamine Mbacke na nga xam ngi lay woo ci bis bii nga xam ne dañ koy defal sunu waajur mu sëñ Abdoul Aziz mu sëñ Baara. ndax sëñ Abdul Aziz ñun moom la ñuy waaje mooy suñu bunt ci Cheikhul Khadim ndax ñun bu ëllëgee ci keppaaru sëñ Abdul Aziz lañuy la la la la ñuy dekkee kon nag nit bu fekkente ne sa lépp ci moom nga ko aj muy sa bunt ci sëñ Touba kookee nit war nga xëy ci moom di gont ci moom moo tax ñun ñuy xëy ci sëñ Abdul Aziz ci la ñuy naane ah, waxoon naa ko sëñ Moustapha fii bi ñu fi ñëwee ne ko yaay sëñ Baara yow la ñuy waaje soo nee teg leen ko fi suuf ñu teg ko fi suuf mu ne du ko wax ndax day sama mbir day mbir sama mbirum bopp moo xam ne dama ko yàgg a bëgg kon day loo xam ne dafa yee jotagul woon waaye bi mu jotee am na am naa ci mbégte loolu nag ñu ngi ciy sant bu baax sëriñ Abdul Karim nag di wax ni ñu ngi woo fépp fu taalibe mën a nekk fépp fu soppe mën a nekk fépp fu wëllëre mën a nekk mboolem gurup yi nga xam ne dañ leen taxawaloon ak fu ñu mën a nekk ci biir réew mi ñu ngi leen di woo ci bis bi nañ leen woo ci organisation comme ni ko sëriñ Saliou Mbacke waxee léegi moom sëñ Modou Boussa Dieng organisation bi lañ bëgg mu réussir te incha allahu rafet nañ ci njort ñu ngi ciy woo ñëpp nangeen ngeen waaj te ñëw te waaj ni ñuy demee ñi ngi koy yëgal ñëpp fépp fu taalibe mën a nekk ña fa nekk yore liggéey yooya nañ organiser seen bopp jël ay oto bind ñi nga xam ne dañoo bëgg a ñëw ci bis bi ñëpp waaj te ñëw ci bis bi ndax bis bi nag incha allah samedi le 9 lay doon samedi le 9 mars lay doon ñu koy defee ci foire bu Dakar bis booba nag li yella ji wax nañ ko mooy dañ bëgg Serigne Abdoul Aziz 1914 ba 1990 lépp loo xamante ne bi sëñ Abdou Aziz defoon na ko fi am nañ yéene ngir xamal ko àdduna am nañ yéene itam ngir wan ko àdduna ngir àdduna mën cee jariñu ndax nit ñi ñu baree baree bari nangootuñu am référence te sëñ Abdou Aziz jàpp nañ ni ay jikkoom bu ñu ko wanee wooteel ko bis taxawal ko bis bindal ko téere def ci documentaire ragal nañ ne Sénégal dana soppeeku Serigne Saliou wax na ko léegi képp ko sëñ Modou Bara kon wax na ko léegi mu sëñ képp koo xam ne day xool nga ci sëñ Abdou ab liggéeyam yaakaar nañ ne ak ku mën a doon ko ne ak ci lépp loo mën a yëngalu ne da nga ci gis sa bopp ba da nga mën a egg fu sori kon nag ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di woo ñëpp di xam ne bàyyiwuñ kenn góor ak jigéen mag ak ndaw képp koo xam ne nag mbégum sëñ Abdul Aziz sa mbég la ñu ngi lay woo képp koo xam ne mbégum sëñ Abdul Karim borom Mbàkke Baari sa mbég la na nga xam ne ñu ngi lay woo auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim ñu ngi am mbégte bu baax di ci jataay bi di siyaare sëriñ Abdou Karim ak mbokk fi teew yëpp di fab sunu siyaare bu jëm ci sunuy kilifa yëpp sëriñ Muntaxa sëriñ Ahmadou Maxtaar ak jabootu Seexul Xadim gépp di ko teg ci sa loxo ñaan yàlla ñu yàgg fi lool ci ànd wér ñu ñëw fi ci ndigalu sëriñ Ahmadou Maxtaar mu wax ne nañ ñëw teew si fii ci mbokk yi ànd ak ñoom lépp luñ leen fekkee biñ ñëwee nag <coughs> xam nañ ne wax ji li fi jàll moom ministre te wax lu ko gën a wér dañuy sof suñuy kàddu yi woote rek ci kàddu yi fi jàll yépp di wax bokk yi ak bokki taalibe yépp ne Cheikh Moustapha moo woote sëriñ Baara moo woote sëriñ Abdou Aziz la ñuy wooteel ñun ñëpp ñu xam ne sëriñ Abdou Aziz moom sëriñ Baara sunu masque yi nga xam ne xam nañ ci moom dara de xam nañ aw doxinam ci ay bokkam ak ci yoon wi ak ci lii ak ci ji mm-hmm. loolu it luñ mën a firndeel. dama jàpp nag ne wooteeg wooteel sëriñ Abdou Aziz mooy wooteel sëriñ Cheikh mooy wooteel sëriñ Mbacke Madina mooy wooteel waa Daaru Xudus bépp kon bépp mbokk wala bépp mbokk taalibe bu bokk ci Daaru Xudus ñu ngi lay yëgal ne bis bi sa bis la ak foo mën a ne lépp luñ ciy def lu ci ay ñaan bu ci kenn jiitu bis ba bu jotee lu waay man na ko ci def ku ca mën a teew na ci teew ngir jëm yàlla ci xam ne Cheikh Moustapha la koy teewal Sëriñ Tuubaa la fay teewal wasalaamaaleykum wa rahmatullah di yëkkati suñuy kàddu ci mboolem sëti Sëriñ Abdou Aziz yi ci ñu góor ñi ak ñu jigéen ñi di woo ñëpp ci bis boobu nga xam ne ñu ngi koy amal ci Cissés le 9 mars muy bis boo xam ne bisu bu am solo lay doon ndax jàmbaar yoo xam ne lislaam ndamoo na ko yoonu murit ndamoo na ko mboolem kuy nit ku baax ndamoo nga ko muy sëñ Abdou du Bara dundam gépp mu saxaleen ko ci jàngale ak jaamu yàlla ak yar kon bis la boo xam ne mboolem njabootu sëñ Abdou Aziz gi rawatina sët yi ñu ngi ciy woo mboolem njabootu Cheikhul gi yëpp ak njabootu cheikh yi Serigne Touba yëpp muy le 10 le 9 mars ca CICES. ñoo ngi sant bu baax di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah ñoo ngi nuyu mbooloo mu fi teew yëpp ci turu Serigne Abdou Karim waaye bala ñoo dugg ci li ñu fi dajale mooy woote bis bi sëriñ bi nee na mi ngi sant mbokk yi mbokkal sëriñ Baara yëpp ngir waajal bis rek mbokk yëpp ñu wuy si ci loolu dafa sedd xol kon sëriñ bi nee na mi ngi leen ciy ñaana te di sant bu baax ci mbooloo gi ngeen boole ci avant premier bi kon nañu soog a dugg ci woote bi sëriñ bi nee na mi ngi nuyu bokk yi fi teew yëpp di leen xamal ni sëriñ Jiili bi mu jàppee bis bi ñëw na ci moom waxtaan ci ak moom mu jox ko ci ndigal booba ba léegi lépp loo xam ne def na ko mi ngi ñëw di ko rendre compte moom njaboot sëriñ Abdul Aziz yëpp ñoo bokk bis bi kon nag sëriñ bi nee na mi ngi ciy woo képp koo xam ne mbokk nga xarit nga sopp nga wala taalibe ci bis bi nga xam ni moom la amal suñu jàmbaar ja muy sëriñ Abdul li ko aju ci daayira yi mën nañ cee bañ a wax ndax Serigne Cheikh Bara mi nga xam ne daayira yi kër Serigne Bara yi woote na ci li nga xam ne ni mooy mbokk yet mën nañ cee bañ a xuus ndax Serigne Modou Bara woo na ñëpp la ndax du kër Serigne Abdou moo ay kër Serigne Bara moo ay ndax sëriñ Abdou Aziz ñëpp xam nañ tànk bi taxawoon ci biir kër Serigne Bara ba tax na njabootu sëriñ Bara gi fi nekkit ñëpp ni ñu jàppe seen waajuru bopp nan lañ ko jàppe ndax woote bii wane na ko néew na ñuy woote ñëpp ñëw teewe si nii te ñëpp teewe si nañ loolu ngir bëgg gu ñu bëgg Serigne Abdou Aziz ak xam gu ñu xam Serigne si Abdou Aziz ak seen diggante ak Serigne si Abdou Aziz waxuma seen diggante seen waajur waaye ñoom ci seen wàllu bopp ñu ci doon mag yëpp mel ni Serigne Cheikh Bara mi ni mu ko ak Serigne Cheikh Bara Karim mi mat nañ ci seere sëriñ bi jàppewu leen woon doom am nawle la jàppoon daan diisoo ak ñoom kon nag su fekkee ne ñu ngi koy woteel bis dañoo am dara ci ngor wala lislaam war nañ koo taxaw ngir jëm sëriñ Serigne sëriñ bi nee na nee na mi ngi ciy woo képp koo xam ne nii njabootu maam maaram nga bokk wàcc ci maam Mor Abdou ba ñëw ci njabootu Cheikhul Khadim bi li ko commencé ci kër Serigne Modou Moustapha ba ci kër Serigne Mourtala bàyyiwu ci kenn nee bis bi bisu ñëpp la mu ngi ciy ñaanit képp koo xam ne ni dagg nga sa yitte ñëw ca ngir jëmmi Serigne Abdou ak jëmmi Serigne Abdou ngir jëmmi Serigne Abdou lépp loo xam ne sa yitte la woon yàlla na ko suñu borom saafara ci daraje Cheikhul Khadim nee na daal bu ci benn taalibe ni dara tax moo ciy def lu dul yitte joo xam ne mënta ñàkk waaye lépp loo xam ne nit jàpp na ko te mën koo bàyyi dem ci bis ba nee na mi ngi la ciy woo ndax bis bi bisama du fa si sëriñ jiili ku ñëw it fa nga koy fekk moo lay dal te booy ñibbeet moo lay ñaanal kon nag wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu yaa ayuha allasina amanu istajibu lillahi wa li rasuli isa daakum lima yuxikum aaya boobu foo ko dégg rek xam nga ne ka ñuy wooteel léppam joxoon na ko borom bi subhanahu wa taala man ci ndigalul Cheikh Mouhamadul Mountakha xalifa sandaar kullu marit ak ci ndigalul Cheikh Mouhamadul Moustapha xalifatu Cheikh Mouhamadul Amin Baara Mbacke ci kilifteefu sëriñ Abdoul Karim Mbacke xalifa sëriñ Abdoul Aziz Baara Mbacke sama tur Abdoul maa ngi woo mbooleem ñi ñu tudde sëriñ Abdoul Aziz Mbacke moo xam lu mu mën a sant rek maa ngi leen woo ñoom ñëpp ci seen bisu turandoo bi nga xam ne moom la ñuy woote Serigne Abdoul Khadir Mbacke ñu gën ko xam ci jiile jii responsable ji le coordonnateur journée culture Serigne Abdoul Aziz Bara Mbacke muy woo mbooleem ku ñu tuddee Serigne Abdoul Aziz Mbacke ak nu la mën a tuddee rek ak noo mën a sant waaye nag ña sant Mbacke ñoo ci jiitu ndax seen bisu wayjur la waaye seen bisu turandoo la li sunu borom bi wax subhaanahu tax taala bi sa ismul fusuux loolu moom dalul ñi nga xam ne dañ leen a tuddee Serigne Abdoul Aziz Bara Mbacke kon nag bis bi sunu bis la ñoo ko war a taxawe luñ ca war a def ñoo ko war a def kuy ñëw ñoo la war a teeru kuy dem ñoo la war a gunge ñu ngi woo bokki jullit yëpp nag bokki taalibe yëpp képp koo xam ne daal ñu ngi lay tudd di du Serigne wala képp koo xam ne ne ab seex nga ci sëriñ Touba seexal sa maam ñu ngi leen di woo yéen ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi si soññ mboolem koo xam si yaa ngi nekk si taalibe yi guy mbindi ak foo ma di nekk ci biir réew mi ak bitim réew ñu ngi lay soññ si bis bi nga xam ne moom la def fële sa CICES di soññ góor di soññ jigéen soxna waale nag nee na mi ngi si soññwaale mbooleem soxna yi nga xam ne ñoom la seeqal centre Abraar seen jëwriñ di Serigne Mbaye Seck ànd koog Baye Abdou mi nga xam ni ñooy jëwriñu kër gi ak mbooleem magi taalib yi kon ñu ngi soññ góor di soññ jigéen mag ak ndaw bàyyi ñu kenn Abdoul Aziz ibnu Cheikh Mahamadul Amin ñu di ko defal bis boo xam ne nag bis bu yàlla la bis bu jaadu la muy journée culturelle Cheikh Abdoul Aziz Bara te bu ñu nee journée culturelle rek ñi ciy gën a bénéficié wu mooy ñi nga xamante ne si loola bu ñu ko waxee ñoom la ëppal njëriñ mooy ndaw ñi daaira bi nga xam ne moo lëkkale mbooleem seeti Cheikh Mouhamadul Lamine Bara yi te Cheikh Mouhamadul Fadal moom Cheikh Abdoul Aziz Lahat Bara nekk ci bopp bi ak mbooleem seeti Cheikh Mouhamadul Lamine Bara yëpp nee nañ bis bi seen bisa Cheikh Amadou Fadal nee na mi ngi koy yëgal mbooleem seeti cheikh mo cheikh Mouhamadou Lamine Bara yëpp rawatin nag mboolem dawaayir yi nga xam ne ñoo nekk ci buntu kër Serigne Touba yi nee na mi ngi leen ko yëgal di leen fàttali bés bi di sàkku seen teewaay yéen ñëpp rawatina nag ñoom ñi nga xam yéen ñi nga xam ne yéen la jiite ngeen xam ne bis bii lépp loo xam ne war na ci ci wàllu organisation loo xam ne war na ci wàllu taxawaay nee na loola na leen wóor na yéen la war kon nee na mi ngi leen ciy soññi na ngeen takku teel a ñëw teel nekk ca liggéey ba ànd kook sëriñ si ba keroog suñu kilifa yi di ñu yeewi Cheikh Mamadou Fadel nee na mi ngi koy yëgal ñëpp bàyyiwut fenn bàyyiwut ñenn waaye itam ñu ngi koy fàttali mbooleem jabootug sëriñ Modou Bara gi nga xam ne tey jii dañ ciy rendre hommage seen wayjur waaye ñi nga xam ne sëriñ Modou Bara mooy seen maam nga xam ne dañ ciy rendre hommage yi tamit sëriñ Modou Bara mi nga xamante ne si moom moo njëkk a toog xalifa Cheikh Mouhamadou Lamine Bara nga xamante ne tey mook Cheikh Abdoul Aziz Bara duñu duñu ñaar duñu ñaar kenn lañ kon buñ defalee bi Cheikh Abdoul Aziz di ci rendre hommage Cheikh Mamadou Lamine Serigne Modou Bara kon loolu lu jaadu la lu yell la kon itam ñu ngi koy yëgal mbooleem jabootuk Serigne Modou Bara gépp te di leen ci bàyyiloo xel mbooleem noo xam ne ñi ngi ko daan taxawee ci yeneen bis yi ñu taxawee nu raw noonu ci bis bi wasalaamaaleykum wa rahmatullah si ndigalul Serigne Abdoul Karim si kàdduk Serigne Jili mu Serigne Abdoul Aziz Bara ñu ngi leen di nuyu te di leen sant te di leen fàttali lii nga xamante ne si moom la ñu bokk muy bis bu ñuy wooteel sëriñ Abdoul Aziz moom sëriñ Baara moom sëriñ Touba moom Xaadim Rasoul le 9 fee sa CICES Dakar sëriñ Jili nee na mi ngi woo mbooleem ku bokk ci maam maaram mi ngi woo képp koo xamante ne si soqe nga si Maam Mor Anta Sali nee na bawul kenn mi ngi woo ñépp te xam ni képp ku bokk foofu mu wax bisub Serigne Abdoul Aziz sa bisa kon nag nee na mi ngi woo ñépp bàyyiwul kenn sëriñ Jili mbir mi nee na dañ ko koo tuddee di ko wax ni ko moom mooy jiite ndax lenn lu nekk day am njiit mu jiite lii si ndigalu sëriñ bi waaye xam na ni mbooleem njabootu sëriñ Abdou Aziz Bara gépp mook ñoom ñoo ko bokk sa jëlbeen ba ci tey jii nee na sëti sëriñ Ba sëti sëriñ Baara yi fi nekk yëpp itam mook ñoom ñoo ko ànd bokk ko ba mu tàmbalee ba tey jii fii fii mu toll ñoo ko si man sax nee na mi ngi leen koy fàttali te di leen si woo te taxawaay bi ngeen taxaw xeebu ko benn yoon mi ngi ko ànd ak yéen muyu góor yi muyu jigéen yi nee na particulièrement rawatina sax njabootu sëriñ baara gu jigéen gi sëtam yu jigéen yi nee na sonn nañ si booba ba léegi ñoom ñoom ñoo ko sëriñ seexu naatim moom sëriñ mu moom sëñ Murtada mu sëñ Modou bu sa jang sëriñ jiili nee na ban tàmbalee ba léegi moom itam ak njabootu waa kër sëñ Fàllu gépp ñoo ko àndandoo nee nañ kon mbir yi dañuy wax ni mbirum waa kër sëriñ Touba gépp la ndax kenn ku nekk dugal na si loxoom buñ fàttalikoo li ma si tàmbali tuuti rek ma cof ko si ban àgg sa bis ba mooy keroog ba nga xamante ne si la ñu ubbi jumaay Mbàkke Kajoor sëriñ abi bu mbakkee daa am lu mu junj dani jumaa jii ñu ta ñu taxaw nii de tey jii na ngeen xam ne wasu cin la daal di bàyyi dem ñi nga xamante ne si ñoo xam muy ñetti jumaa yi fi nekkoon jumaa jumaay Njaareem ba jumaay Touba soo ko cornamat soo ko nattee 40 kilomètres la jumaay Touba ba jumaay Mbàkke Kajoor 40 kilomètres la kon nan xam ni kon wasu cin moom waxoon te ñetti wasu cin ñetti tànk dañuy tolloo te kon loolu la bëggoon a wax moo taxoon te booba nattu ko moom waxu ko waaye baatin la ko waxee moo taxoon mu ne ji wasu cin la kon jumaay Mbàkke Kajoor ba jumaay Touba 40 kilomètres la jumaay Touba ba jumaay Njaareem 40 kilomètres ñu ba ñu xam ni nag cin loo gis day am was te was waa kat kat xamante ne si moo wuti woon was wa teg ko mooy Serigne Abdou Aziz Bara bis bi nga xamante ne si nag moom la ñuy wax bis bu nekk day am si lu mu tege tey day bis boo xamante ne si dañ koo dañ see dañ ko dañ koo tudde Serigne Cheikh Gaynde Fatma képp koo xamante ne si xam nga yoonu murit da nga xam ne diggante Serigne Abdou Aziz ak Serigne Cheikh Gaynde Fatma samedi ak dimanche la dara benn bis seen diggante kon su ñu defal Serigne Abdou Aziz journée culturelle tuddee ko Serigne seex Gaynde Fatma muy parrain bi yaakaar naa ni loolu yàlla la ñu koy invité d'honneur bi nag Serigne Cheikh invité d'honneur bi Serigne Seex moom Serigne Abdou Khader moom Serigne Touba la moom itam soo feetloo dañoo delloo nda mbattu sa ndaa la ndax Serigne Abdou Aziz ak Serigne euh, waajuram wa muy Serigne Seex ñoom ñaar kenn lañu woon kon tey suñu jëlee Serigne Seex daf ko invité d'honneur yaakaar naa ne delloo nañ mbattu sa ndaa la ki nga xamante ne si li topp mooy ñin si rendre hommage muy ñaar muy muy ña muy ña muy ñaar muy ki nga xamante ne si moom la yàlla suñu borom dogal mu njëkk a nekk sëtub Serigne Touba muy Serigne Mouhamadul Hafiz Mbacke moom Serigne Baara njëkk nekk sëtub Serigne Touba Serigne Touba njëkk koo gis si kaw suuf moom lañ si rendre hommage ak xaritub Serigne Abdou Aziz Ba nga xamante dañoo nekkoon benn ñoom ñaar muy El Hadj Jili Mbay bu Louga ñoom ñaar lañ si rendre hommage. lu am parrain nag day am marraine marraine nag ñaar la soxna Ami Mariama Kebe la. soxna ami Mbacke Mariam Kebe moom Serigne Baara moom mooy benn marraine bi ki si toppaat mooy soxna moomi Mbacke moom Serigne Abdou borom dër bi yaakaar naa ni comme Serigne Jili li nga xamante ne si moom la nit ñëpp doon waroon a wër bu yàgg a yàgg di ko dajale fu nekk di ko defar yow tënk nga lépp ñaari fan teg ko teg teg ko tey jii kon képp koo xamante ne si daje nga bis ñëw nga sa booba de yaakaar naa ni li nga xamante ne si moom la ñuy wër si nit ku baax te nit ñëpp lu baax fu ñu ko dégg wëri ko te ku fa ñëw da ko fekk lu baax lu baax foofu rek la nekk foofu la nekk bari na waaye wute na waaye nag nañ xam ni sëriñ Abdoul kenn la woon te sa bis ba lañ koy xamee comme tey ab woote la ñuy woote di wax wax jo jooju mbir mu nekk nag day am lu fi nekk kilifa aada am na fépp foo xamante ni si kilifa diine nga bu nekk si biir réew mi bàyyiwun la ñu ngi lay woo yaag seen njaboot kilifa aada gu nekk si biir réew mii ñu ngi lay woo kilifa aada gu mën a doon moo xam politique nga noo ko mën a defee tàmbale si président de la république ak nu mën a doon ñu ngi la si woo te xam ne bis bii bisub lislaam la bisu àdduna bépp la particulièrement nag ki nga xamante ne si ñoo bokk suñu Abdou Aziz fu mu toll di ko wax muy maître Madické Niang ñu ngi ko ci woote xam ne ñun ak moom ñoo bokk sëñ Abdou Aziz te ndax liñ sañ sëñ Abdou Aziz rek la kon bis bi bisama ñu ngi sant ñëpp si li nga xamante ne si moo weesu di soññi ñëpp si li nga xamante ne si li leen jublu jub jub jublu wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu di journée culturelle Serigne Abdou Aziz Monsieur Mouhamadou Lamine Bara war a nekk samedi le 9 mars 2024 ca foire bu Dakar ñi ngi ci woo ñëpp bàyyi wuñ kenn waaye mbokk yi xam ngeen ni sëriñ bi bi mu sumbee bis bi muy sëñ jiil ak ñi mu ko àndal da ko ànd ak mbokk yoo xamante ni faaw ñu sant leen ku ci mel ni sëriñ Seexuna Mbàkke mu Seex Mouhamadou Moutouda sëriñ Abdou Aziz moom sëriñ Ahmed waaye sëriñ Mamor Kan waaye ak ki nga xam mooy sëriñ Maxtaar Ñang mi nga xamante ni lu tolloog ñaari weer ñu ngi tàmbali njàngu alxuraan mi fas nañ yéene bu ñu àggee ci bis ba jàng xatma bi ñaanal bokki julli yëpp ñaanal réew mi waaye tamit ki nga xamante ni mooy sëñ Abdou mi toog moom sëñ Abdou Assis ak ñi mu àndal ñëpp ñu ngi leen sant di leen gërëm di sant soxna Younus Mbacke mooy moom sëñ Abdou Assis soxna Maam Jaara Mangaan soxna Mbène Dioum lawbeb Cheikh Mouhamadou Lamine Baara Mbacke ak soxna Aji Mbacke Louga moom sëñ Abdou Assis ak soxna Ndey Mbacke Louga ak soxna Maam Ami ak ki nga xam mooy soxna Maam Fatim moom sëñ Moustapha soxna Maam Jaara Seck moom Alaaji Ibra Seck di sët ci sëriñ Abdou Assis ak soxna Kine Sarr ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp